asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi jàkkaarloo ak ñun diñu seetaan ginnaaw bu nu sante sunu borom subhanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddaliwaat sunu yaakaar cheikhuna ahmadul xadim noo ngi ñaanal sëriñ Touba cheikh mahamadul muntaxa yàlla na ko fi son borom gën a yàggal te gën a dolli ak wéram waaye ñaanal sëriñ Sidi Mbacke xalifat cheikh Abdoul Ahad Mbacke yàlla na ko sun borom may fan wu gudd lool waa ak wér gu te defal ko mbooleem njabootu Cheikh Abdoul Ahad gépp no amaan mbégti toog ci jataay bi nga xam ne jataayu sant yàlla la waaye di jataayu fàttaliku ak woote waat muy liggéey bi nga xam ne at mu jot sëriñ Sidi xalifa Cheikh Abdoul Ahad dana ko teg ci loxol rakkam di taalibeem di sëriñ Amsatu Mbàkke mu Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke mu di ko woote ca tool yi Daaru Salaam bokki barga te ku ne xam ne woote boobu saa yu jógee ñun askanu ba danañ ci am sun xaasi bopp joo xamante ne bii danañ ko jagleel te muy jaar ci loxol sëriñ Mahmoudan Sill moo tax tey jii ñu toog fii ci këram nag fas yéene def woote boo xam ne mi ngi jëm ci liggéey boobu liggéey bi nag war a doon le 9 decembre incha allahu rabbi di dëppoog àjjuma moo tax danañ yëkkati kàddu gi jox ko sëriñ Assane Sylla mi nga xam ne mooy wax ci turu mbooleem askanu Taïba wépp suñu noppee ñu jox sëriñ Mbaye Sylla miy wax ci turu Baye Ousmane Sylla waaye su noppee nag danañ jox sëriñ Xaadim Sylla mi nga xam ne moo mag ci mbooleem sët yi mi ngi nii toog moom sëriñ Mor Diarra suñu noppee danañ jox sëriñ bay Sylla mi nga xam ne mooy wax ci turu Baye Serigne Touré suñu noppee njabootuk Baye Serigne Touré gépp suñu noppee danañ jox Serigne Thierno Diop mi nga xam ne mooy wax ci turu mbooleem njabootuk Serigne Mor Diop gépp suñu noppee danañ jox kaddu gi Serigne Mahmoudan Sill miy wax ci turu njabootuk Serigne Mourtala Sill suñu noppee ñu jox Serigne Ahmadou Sill mi nga xam ne mooy wax ci turu mbooleem njabootuk Serigne Modou Khalifa suñu noppee nag danañ jox Serigne Moustapha Sill moom mi nga xam ne mooy wax ci turu njabootuk Serigne Balla Paate suñu noppee jox Serigne Serigne Balla Ndiaye mi wax ci turu taalibe yi sëriñ noppee sëriñ mahmoudan sili miy wax ci turu sëriñ dan dana yëkkati kàddu tëj ko su noppee ñu jox soxna mbay la miy wax ci tuuru soxna ami sili muy toog ñu ñaan suñu borom may ko fan fanu gudd loolu waa ànd ak wér yaram ak mbooleem njaboot gi nga xam ne ñooy dem ci liggéey bi mbokki taalib yi ñoo ngi leen di nuyu ci turu sëriñ deqale mi nga xam ne mooy xalifa mooy jëwriñu sëriñ ousmane di leen jottali ndigal loo xamante ni bii ne mu ngi bàyyi ko ci sëriñ siidi wàcc sëriñ mahmoudan wàcc ma ak gépp Euh, Baye Dakhla nag du joxe ndigal ci duru magam ji sëriñ Ousmane te ñaan yàlla sa borom mu yàgg ko jox ndigal mu yàggu na ko jottali muy wax ndigal képp koo xamante bii ne aju nga ci ba ak noo ci mën a ajoo sëriñ bi nee na liggéey bii liggéey Taïba gépp la kon noo ngi ñaan ndam leen ci amoon daaw nan takkuwaat te góorgóorlu te fa seefu ba dem ci ndaw lu ko raw lu ko raw nee na mi ngi ñaan ci barkeb sëriñ Ousmane barkeb sëriñ Mirina yàlla dem ci jàmm dikk ci jàmm dara ma gàllankoor ñaan sa borom nu ndigalu yàlla bàyyi ko ci waa kër sëñ Siidi yàgg wàcc sëñ Mahmadan yàgg wàcc noonu ñu yàgg koo jëfee ci barkeb Xaadimu Rasuul ñoo ngi nuyu mbokk yëpp ci turu sëriñ Ousmane mi xalifa sëñ Mirina waaye ñuy wax ci kàddu sëriñ Mbay mi nga xam ne moo yor kàddoom ci jataay bi E, di jottali kàddu yoo xam ne ci turu sëriñ bi lañ koy jottalee <coughs> mooy li nga xam ne e, mooy liggéey bi sëriñ Sidi Mbacke e, xalif Cheikh Abdoul Ahad jox ndigal sëriñ Mahmoudan moom sëriñ Mut Seynabu ñu wax ne sëñ bay wax ne nañu wax ci turu sëriñ bi sëriñ Ousmane Eh, sëriñ bi nee na mi ngi ci soññ ñëpp <coughs> mboolem njabootuk ba gépp eh, ñu def ko nañ ko defe woon daaw dañ ko daan defee ñu taxaw ci ñu amatu ci ay ndam rek ca soññi njaboot gépp ku ci nekk rek la mu war a taxawee mu daal di koy taxawee mboolem sëti sëriñ Mbill yi maa ngi leen di woo ci liggéey bii nga xam ne sëñ Mahamadoun Syll sama rakk ji nga xam ne noo bokk lépp rakk bokk gune suñu borom dafa am noom cay defee léegi mboolem ñi nga xam ne ñoo sut sëñ mbir maa ngi leen di woo ñu ñëw ci liggéey bi nga xam ne sëñ ni mii lañ ko sant sant sëñ Sidi Mbàkke sant ko mu di ko def ñu fas yéene ko woote di liggéey ko ci jàmm dem ci jàmm dikk ci jàmm dara bañ a kenn bañ del ci jàmm ci kàddu na sëriñ bi ndigal nag jog na moo tax nag amul lu muy ndigal man nag eh, eh, ki nga xamee moo fi nekk di di di suñu mbir mooy lépp wante nag eh, dafa am ay bunt ñun ñoo xëy ñun ñun ñun njabootu Baye Serigne Touré nga xëy ni mooy suñu bunt mooy suñu bunt ci suñu ci ci ci maam suñu mbir naa yàlla dafa ma nekk seen jëwriñ maa ngi soññ ñëpp bàyyiwuma kenn tàmbalee ko ci tàmbalee ko suñu mayib si li may suñu kilifa nekk ci jokkul teg ci Cheikh Mbacke teg ci teg ci Cheikh Mbacke sama rak teg ci Abdoulaat te teg teg suñu xaalis bi yëpp ñoom ñëpp maa ngi leen ci woo nañ ko defoon daaw rek ginnaaw ginnaaw maa ngi ci boole taal bi ndax ndax ndax lépp ñooma ñoom ñëpp maa ngi leen di woo ci turu sangi bi ak ak ak Malick ak ñi ak ak ak suñu aada ji ak ñi nga ñoo seq léegi la cay topp moo di noo ngi woote ngir yàlla ci liggéey sëriñ bii. maa ngi ci woo nag man sama bokki kokki yëpp ndax kokkeeg Médina moom yàgg nañoo doon benn ñoo bokk lépp ñoo bokk lu fu ne ñoo bokk fu ne ñoo bokk lu ne kon noo ngi leen ci woo ci liggéey bi liggéey bi nag ni ma ko gisee mooy Serigne Touba sant na sëñ Médina ab liggéey kon ku bokk ci Médina ak ku bokk ci kokki war nga saa dem ndax Médina ak kokki benn lañu ko ku ndey wuti Médina ndey nga ci kokki ku ndey ci kokki bàyyi nga ci Médina kon miir naa ko ki benn maa ngi woo ñëpp. di leen sant di sant bu baax ci jataay bi di sant sëriñ Mahmoudane mi ko woote. kon nag képp ku yaakaar sëñ Médina wala ngay wëlëre wala ngay xarit wala ngay soppee ñu ngi lay woo ci liggéey bi rawatina nag ñi ñi nga xamante ne nii sëñ Médina sëñ Mourtala mooy seen bunt ci sëñ Médina maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn lim juum waaye bàyyiwuma kenn taaliba yeeg. njaboot gi ak jarbaat yeeg soppe yeeg ñëpp maa ngi leen di woo ci liggéey bi na ko waxee woon daal laa koy waxewaat ñu dañ ci am ñaari tànk kon nag wala ñu gën a góorgóorlu ndax sëñ Tuubaa mooy liggéeyloo sëñ Mirna sëñ Mahamadan mi jiite ko te sëñ Abdoulaye mooy suñ bunt ci kër suñ Tuubaa kon nag war nañ cee ràññu ko maa ngi woo taalibe yëpp kenn indi aw lay am mbàcc lañuy woote ak jëri ak dajale gerte ak dajale am ngooñ kuy dikk na nga indaale jumtuwaay loxo yi neen bu kenn yor te ku dikk na nga xam ne bala ñu faa jóge lépp dafa àgg fu waay mën a nekk nag te diglu sama ndigal woo naa la ci bugguma daal kenn lay ma dara ku dem ba am gàllankoor nag nañ ki def saw ñaq ndax liggéey suñ tubaabam ku la ci woo rek mënoo koo fay ajjuma la ñuy départ fii ci kër sañ Mahamadan ak ci Daaru Salaam kër Baay Usmaan ñu nekk Tuubaa li ko wër bu ñu xëyee ajjuma na ñëw fii ci kër gi ñu nekk ci réew ma bu ñu xëyee suba teel nañ ñu fekk mbir na ñu dem Daaru Salaam fa la ñuy déparé. di soññee it ci liggéey bi nga xam ne moo fi dajale ñu ko sëñ Thierno mi waxee léegi sëñ Tuubaa moo sant sëñ mbir na ab liggéey te ñun waa kër sëñ lépp lu ñu am sëriñ Tuubaa sëñ mbir kon ñu ngi woo ñu taalibe yëpp di leen soññ bu baax a baax ci jiital Iliman Ndiaye mi nga xam ne moo jiite taalibe yi mm, soññee bu baax a baax di suñu borom mi nga xam ne moom moo nu sëriñ bi. sëñ Dan mii nga xam ne moom mooy jëwriñu liggéey bii suñu borom bàyyi ko fi kattanal ko dëgëral ko tam yàgg ci am ay ndam yu bare bare bare ci barke Seexul Xadim di soññi waa réew ma yëpp mbokki séeréer yaag ñëpp ñu leen soññ ñëpp ñu si ñëpp jàpp ci liggéey bi ba ñu am si ndam ci daan am yàlla na yàlla dimbali ñu ba dem ak jàmm ñëw mi nga xam ne mooy suñu mag ñu teew ci tay bii mu teewloon ko ñaanal yaa borom yàggal ko fi lool liggéey bi yàgg ci loxoom ñun suñu xool seet na guy ñun amuñu sa pay yàlla moo am sa pay yàlla na fay maa ngi woo képp koo xam ne maa ngi sa bunt ci kër sëñ Mirina sama sëñ Modou Khalifa mooy sa bunt ci kër sëñ Mirina maa ngi woo sama rakk yëpp ci woote bi maa ngi ciy woo Alaaji Bàcc Caam Baay Bàcc Caam mooy suñu bunt ci kër mooy suñu kilifa ci kër sëñ Mirina ñu ngi koy woo ak njabootam gépp di ko yëgal fas nañu yéene daal nan defan daal daan ko def ànd ak yow ba mu jeex tàkk nga ñaanu ñibbi suñu kër yàlla na la fi yàlla si suñu xol sedd na guy maa ngi woote ci turu Sëriñ Ousmane Sylla jaare ko ci sëñ Mahamadan Syll mi di woote nag ci turu bo nun dongo yi nan fas yéene liggéey bii noo noonu lépp lépp nun la war ñii kër wàcc nañ sëñ bi wàcc na bokkam yëpp ñi ngi teew li ñu war a def lépp def nañ ko lu ci def nu na noo war a war ci wata yi guddi noo war a nekk ci mbàcc ma noo war a liggéey liggéey bi lu fu yàlla nu ci yàlla defal nag lam lam ci daa am waaye pas-pas bi moom nan ko fasoo kenn kuy ñëw na nga indiale sa jumtukaay mbaay radu fourchette lépp loo xam ne moom la ñuy liggéey ñëwee loxoy neen nan ànd ak ndax dafa bokk ci sarti doonu murit liggéeyal sab sëriñ liggéeyal sab sëriñ dafa bo bokk ci ba ñuy lim luy tax a doonu murit bi xidmatin aw bi xubbin la loolu lañ wax kon nag bu ñu liggéeyloo békki lañ def lool yàlla nañ ko mën a defe ni ko sëriñ ba bëggee wala nu ko raw ba ñibbi ñibbisiwaat ci jàmm kon nag ñi mboolem ñi aju ci kër sëñ Mahamadou kër sëñ Mahamadou bu Sylla maa ngi leen di woo ci turu sëñ Mahamadou Sylla man mi seen jawriñ di am di Moustapha Sylla maa ngi woo Balla Siis ak Masir Bey ak daayira Asxaabul Jannati bi njiite ñoom ñëpp ak gone gu bokk ci daayira bi sax maa ngi lay woo nanga ñëw maa ngi woo daayira bu waa itali ci njiitul Moodu Kare daayira tey Cheikhul Hachir ñoom xam naa ñëw yomb waaye nag mën nañoo participer ndax euh, yëf yi frais yi dana xaw a ndax man dara umpuma ci lépp laa xam euh, ab liggéey ñiy liggéey jàmbaar lañ waaye ñi leen di jox lañuy ñuy dundee itam jàmbaar lañ kon nag maa ngi woo ñëpp maa ngi woo daay rëpp ñi ca Ndakaaru ci njiitul Sëriñ Xaarim Faal muy daay dama fàttixul yi maa ngi leen di woo yéen ñëpp ku bokk ci daayira ba maa ngi lay woo bul joxe benn ngànt ku fa nekk ca bokk ci kër gi wala nga bokk ci kër sëñ Mbirina ca bokkoo ci daayira bi itam ñu ngi lay woo na nga ñëw andaa la jumtukaay ndax mbàcc la ak jëri ak roñum ngooñ ak roñ gerte loolu il faut ab radoo koy def ak fourchette ak paan wala bool boo jëree bu ko fi kenn bàyyi maa ngi woo daayira Ziguinchor muy daayira bu Naafi ci njiitul Yuusu Bey ak euh, suñ Modou Ablaye euh, Sow ñoom ñëpp nañ ñëw buñ ko mënee buñ ko mënut ñu seet nuñ mën a participer lu mën a jàpp ci liggéey bi maa ngi lay son yéen ñëpp nag di leen ñaan yi ñëpp nañ teew nañ ko daan teewe yàlla may nu ci ndam nu raw nañ ko ci daan amee yàlla dimbale nu bàyyil nu fi suñ Muntaxa mu jàgg fi lool ci suñ kanam ci ànd ak wér bàyyil nu fi suñ siidi mbakke mu yàgg fi lool ci suñ kanam dinu sant bu liggéey ñu di ko defe ni mu ko bëggee waa Touba gi surtout ñu sant kan ci njiitul sëñ Ibra kan ak sëñ Moustapha kan ñoom ñëpp mooy itam maa ngi leen di woo xam naa ay mag lañ waaye nañ soññ gone yëpp. maa ngi soññ nag mbooleem njabootu kër maam Samba Xari Kan bàyyiwuma kenn. ci liggéey bi nga xam ne moom la sëñ Sidi Mbacke sant Cheikh Mahamadan sill bëgg naa yéen ñëpp ngeen fekk ma Touba Boki Barga ca mbees ma ak mbàcc ma ak waañ wa bàyyiwuñ kenn te képp ku fa teew mbaa nga teewal fa dara def nga lu neex maam Samba Xari Kan ndax ma Samba Xari Kan kat sëñ mbiri na rek la gëm moom rek la yaakaar neewoon na ko sàmba mu ne maa mu ne ko néeg boo fanaan bu ne na sam xel dal maa lay tëjal buntu ba. di am mbégte ak kontaante gu mag ci teewaay bi ñu fii ngir liggéey Serigne Touba. moo moom rek la taalib yi war di dox muy liggéey Serigne Touba sama xol sedd ci guy damaa jóge ci marché ba ñuy toj de waaye wooteb Serigne Touba bi rek moo tax a xam ne moom tawfeex rek la di ñaan yàlla sëñ Mouhamadan mi waral woote bii suñ borom jaarale ko ci moom muy liggéey sëñ Sidi yàlla na ko fi yàlla yàggal yàggal fi ay rakkam aki bokkam ak i taalibeem ak i soppeem ak i xaritam di ñaan yàlla liggéey bi nag ndam li nga ci daan am si li njëkk yàlla na nga ci am ren ndam lu ko ëpp. di ñaan nag képp ku ci ñëw maa ngi def ci saw ñàqit yàlla sëñ Tuubaa gàttandu ak loo xam amoo ko te mënoo koo am di sant nag bu baax rek di gërëm ci lii nu sëñ Tuubaa taw fexale mu yëkkati aw waar jox na ko ci sëriñ Tuubaa dina ko liggéeyloo kon murid yi taalibe yi bokk yi jullit yi rawatina sëti sëriñ Mirina yi ak sëtaati sëriñ Mirina yi li jëm ci wàllu jigéen ñi te soxna Xadi si li doon seen jëwriñ maa ko fi teewal teewal fi sëti sëriñ Mirina yi ñun ñëpp ci lañ bokk di kàddu kàddu sëriñ Mirina ci sët jigéen yi man mi maa ko yore ak soxna Ndeye Mbacke maa ngi waxaale soxna Ndeye Mbacke kàddoom ñun ñëpp fas na yéene takku ànd ak sëñ Mahamadan ànd ak moom ci liggéey bi ànd fu mu taxaw nu taxaw ci wetam lu mu dem mu necca nu necca loola ba ba muy noppi nu àndat ñibbisi soobee Serigne Touba ndax dañu am mbégte lool ak kontaante ci lii nu Serigne Touba def loo liggéey Serigne Touba nag yomb na waaye mu liggéey loola moo jafe kon bu nu amee cër mu yëkkati ne lii defal leen ma ko loolu sunu fajuk ajo tey ëllëg mi ci kon mu yi taalibe yi bokk yi jullit yépp na ngeen ñoom bokk ci liggéey bi jërëjëf mbokk yi ñoo jot a dégg woote baa ngi noonu di woote bàcc ak jëri ak dajale ngooñ ak gerte di amee ca tool yi Daaru Salaam bokki Barga sëriñ Sidi mu Cheikh Abdoul Ahad sant ko sëriñ Amsatu sëriñ Amsatu sant ko sëriñ Mahmoudan mu ànd ko ak bokki ba yëpp kon départ bi ajuma lay doon incha allahu rabbi di amee fii ci Touba ci kër sëriñ Mahmoudan sil gi nekk ci 30 bi waaye di amee ca Daaru Salaam nag. ca buntu kër Baye Ousmane mbooleem ñi nga xam ne ñooy jóge tey ba ñu ñëw foofu kon sëriñ Mahmoudan nee na mi ngi ci soññu góor ak jigéen mag ak ndaw di leen xamal na lii ndabul xéewal la rek loo xam ne sëriñ Tuubaa ko taaj ci ëttub tey ba te bu sañoon bokki tey ba yépp bokk ko moom jariñoo ko daal di jot ca ngërëm la sëriñ Tuubaa moo wax ne waq di xawaa ijal lazina daamu fii xidmati wa hablahum maaraamu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu